compu Oslof ci li gën a fës yi bokk yi mbaa jàmm ngeen am ñun dey moom la ñu fanaanoo ubbil ma yeglekaay bi standard xëy bind ci xëtam wu njëkk njiiti réew mi Adama Baro daal na tabbu ab xelalkat maanaam adviser ci lu rek jëm ci mbiru kaaraangay xarala yi maanaam rek cyber security bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi Souleymane Camara moom la njiiti réew mi tabb ngir rek mu doon xelalkatam ci rek wàll wi muy rek cyber security ci lu ko rek dooree ci benn fan ci weeru février moom Souleymane Camara àdduna jëmee ci rek pal gi ñu ko rek fal Wade nee na mbégte kese la ci rek kóolute gi njiiti réew mi rek am jëme ci moom mu teg ci ne dina rek def kim kàttanam ba rekk fexe ba def lu tax njiiti réew mi rek teg ko fa ubbil ma yëglekaay bi jàngune bu mag ba ca faraba maanaam yuuti ji faraba campus jàng ma dina rek door ci weeru avril bu ñu sukkandikoo ci bi du rek a antu ndax nag yenn ci bagage mi mu teg ci ne léegi njàng mi dina rek door ci weeru bi ginnaaw jëyee ja xew ca réewum tokki muy a suuf si yëngatu ba lim bu takku faatu ci ak ñu bari ñu ci jëlee ay gaañu gaañu yu metti ca réewum tokki ak si Syria jëwriñal biiri biti réew yi maanaam ministre of foreign affairs daal dinañu xamle ne amul benn gambien bu ci rek ñàkk bakkanam nee nañu gambien yi nekkoon rek ci tund yi mbir mi rek xewe ñëpp a ngi rek ci jàmm kenn deewu ci ubbil ma yëglekaay bi commissioner général bu kuréel gi saytu galak ci réew mi muy rek Gambia Authority daal dina artu ñuy rek jéggaane ay bagage maanaam importation ngir rek ñoom ñëpp ñuy farlu rek ci wàllu galak maanaam su dul loolu ndaan yu métti mënees na bi jenn la ñu rek mu yor Sénébar maanaam rek drogue bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi kuréel gi xeex wàllu sinébar ci réew mi di rek drogue law enforcement agency ca tundu West Coast Region jàpp nañu ab Nigerian bu ñu rek njortu ne day rek jaay ay sinébar yes rek di tere ci réew mi moom waa ji ay atam toll na ci rek fanweeri at ak juróom mi ngi rek yeewoo ca sance ba Suley Joob moom nag teg nañu ko loxo ci rek juróom benn fan ci weeru février fekk ci moom rek sinébar fukk moom waa ji nag mi ngi ci yi ubbil ma yëglekaay haute autorité daal dinañu xaatim ab contrat bu toll ci ñetti millions ci sunu koppar ngir rek yeesalaat rek lu bu Birkama maanaam Birkama hospital contrat bi Manjang Stars construction la ko jox ngir rek ñu yeesalaat maanaam rehabilitation seen njiit li maanaam manager Ousmane Jobaate daal dina li waral mu dogu ci yeesalaat raglu bu rek biir kaama mooy rek dafa demoon ci rek hospital bi daal di rek gis tolluwaayu hospital bi ci noonu rek la dogoo ngir rek daal di koy yeesalaat ubbil ma yeglekaay bi njiitu kuréelu mbootaayu layokat yi maanaam Gambia Bar Association Saliou daal dina xamle ne juboo maanaam réconciliation mënul am fii ak yoon deful liggéeyam nee na nag ngir juboo am faaw rek ñu def yoon maanaam rek justice faaw rek mu daal di am ubbil ma yëglekaay bi foore a xëy samp ab laaj jëme ci xaalisu dalasi nee na ba xam dalasi CFA daf ko rek wéy di faagagal am déet toppal xibaar yi ci Africa TV